Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf docteur Cheikh Kanté ma wuutu Bara ca poorum Dakar lu observateur xëya tey njiitu réew mi Macky moo ko baddil ubbil yéenekaay bi marché engrais bi TSE bu Cheikh Amar yore woon la Macky Sall jële ca moom séddale ko juróom-benni société yu nekk ci réew mi Senchim bu ICS SEDAP Agrofitex SEPAC Matix ak SEMAC yéenekaay bi nañu la cay ñuul nag ba jara wax moo di SEMAC googee bokk ci benn ci juróom-benni so yi Macky Sall jox marché engrais gi kii di Dakar moom moom société ba docteur Cheikh Kanté mu ñuy tudd ca coow la observateur laaj ko ana lan la ci xam ak nan la ko gisee la mu leen tontu moo di dara nekku ca ndax moom dafa légal kii égaliser que légaliser di njiit réew mi Macky Sall na feneen le quotidien nañu fa mu génn gi la yoon moo di directeur généraux yi ci réew mi nee na ñooñe ñëpp seenub salaire bu ci benn rombati juróomi million yéene kaay bi nañu laata ma koy wax nag fekk na directeur généraux yi ci réew mi ñu ca bari seen ab salaire bu néewee ba néew juróom-ñetti millions la ndax directeur général bu COSEC juróom-ñetti millions la doon fayee ko directeur général bu ASER juróom la doon fayee ko directeur général bu port autonome bu Ndakaaru fukki millions ak benn la doon fayee ko kay yanu jonkolonko ga nag ëppale woon lu mu doon fayee ko ci directeur généraux yi yéen kaay bi nañu mooy njiital ARTP ndax moom fukki million ak ñeent moom la doon fayee ko kookee ku mu libération nañu mi ngi ndonga jaw njiital ARTP ba woon mi ngi ci xët mu njëkk yéen bi ku ci indi journal bi nañu moom Ndonga Diaw dafa wàcc ba jekk bëgg a génn réew mi gars ne ko mënoo génn jamono ji bul génn réew mi ndax dañu la soxla la tax moo di la ko dénkoon di ARTP ki dañ caa nemmeeku ay njuuj njaaja ki njub la nga ki jalgati yoo xamante ne ji Ndonga Diaw ma ko jiite woon mënee su koo bàyyi mu demee noo ne njuuj njaaje bu weesoo ARTP ga mu feeñ feeñ na ca Global Wise feeñ na ca MTL loolee tax Ndonga jaw ñu ne duñu ko bàyyi mu dem ndax ay milliards ñuy dégg te kenn du xam fan la jaar ñu jaare foofee seeti las muy topp ba léegi ñay topp oto ya ñu ngembaloon ca présidence de la république Macky Sall yéene kaay bi nañu caaxaanatul ci yëf yi la mu fas yéene moo di gannaaw oto yi ba sonn te ba fi mu nekk nii oto yu ca bëri mënuñoo daje léegi nag la mu nar mooy képp koo xam ne joxtu nañ ne Abdoulaye Wade joxoon na la ca wata yooye ñu dem sa kër bu ñu fa demee fekk fa oto boo moomul ñu nangu ko dem dawal ko gaare ko palais palais de la république ka fa newoon di Abdoulaye Wade ñamu fa newaloon di ay ministre kenn ci ñoom di Ousmane Ngom mi ngi ci xët mu njëkk populaire yéene kaay bi nañu moom it coow topp na ko ndax mbiri passeport numérisé mu fi indi woon moom Ousmane Ngom ay njuuj njaaje ki léexóor daf caa am Birahim Seck bu forum civil di ñu leeral ci yéene kaay bi ne loolee lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom dugg na ci ca lépp ci marché bi ama neex la ci marché boo xamante ni ji nañu ko doxalee dara ci jaaru yoon te lépp nag Ousmane Ngom la Mahmoud Saleh di dànkaaf Ousmane Ngom ci populaire la mu ko xamal moo di Ousmane Ngom na defaru rek toog di xaar te xam ne lii ñëw ngi ñëw ñu ñëwaat ci laas yéenekaay fekk si fa Viviane Wade soxnas Abdoulaye Wade njiitu réew Sénégal ba woon yéenekaay bi nañu moom it di Viviane Wade kenn ëpp ko coow ndax mbiri détournement deniers sa mbiru bopp moom lañ lay toppee Moustapha Cissé Lo ci observateur Moustapha Cissé Lo moo njëkk a jël kàddu ga ne El Hadji Diouf wax ak moom ndax ab dof la maître El Hadji Diouf ko ci yéenekaay bi ne Moustapha Cissé Lo kuy wër ab dof ba romb ko perte nga ndax dof la bu dopp poor bu ñu gome ba mu wow kongo Moustapha Cissé Lo dafa perdi Moustapha Cissé Lo dafa réer te Macky Sall bu dee am na lu mu war a lijjanti war leen a contrôler càkkam ko war a njëkkee moo di ci Moustapha Cissé Lo njëkk ko ci xët mu njëkkool fajar grand place lam foox El Hadji Diouf moo di du Marcelo jamono ji dafa am lu ko doy sëkk soxla ndax wax na ne la mu bëgg mooy doon président assemblée nationale waaye loolee ca parti ba mu bokk di APR am na ñu ca àndul ndax ca diwaanu Ndar ñay jàppal tànk parti bi di APR nee ñu du ca dal la daloon Yaxya Jóob Yékini keroog ba muy dajeek Balla Gaye ba taxoon Triple Less doom yi Double Less ko dóor fi suuf ndey mbili ji di Yaxya Jóob Yékini xëy na ci wax ci xët mu njëkk sunu làmb Yékini ne bésub a féete suuf daf koo jaaxal yéen kaay bi nañu loolu lépp moom Yaxya Jóob Yékini ma ngi ko waxee ca diwaanu Joal laas ne ko ca Joal goge Yékini dem na fa textu bu rëy la ko textu sargal ko màggal ko jox ko cëram ci Leewtoo yéen kaay Yaxya Jóob Yékini di xam ne ne bu rëy boobee ñu ko textu ca fa mu Joal bu ko doyul kon mu xam ne moom gorewul lu soxal mbiri Manga 2 mi ñu ne bokk nañ ci ñi complot Yékini ba tax mu daanu Yékini ne du wax ci mbiri Manga 2 leneen li mu wax mi ngi ko wax ci Leewtoo yéenekaay di mbirum tiituru roi des arènes Yaxya Jóob Yékini ne loolee ña ca nekk di wax di taaweekal leem-leemal am roi des arènes indi roi des arènes defuñu dara lu dul am ak jot moom Yékini du ca wax ndax perte de temps la ci observateur Yaxya Jóob Yékini dikk daaneel wax ja gonek basul gi ni Sénégal mu amati mbër moom lu mu gàtt-gàtt danañu toog juróom fukki at ngir soog a mën a am ku ma wutu nit ñi ndeke li ñuy bari bari noonu la ñu wutee am na keneen ku defati njombe ba xëy ko yeggee waa Confidence Magazine ubbil yéenekaay bi kii benn waay la nekk ak magam bu góor mag ju góor ji takk jabar jabar ji dikk bàyyi fa mag ja nopp rakk ji ñoom ñaar bu ñu wéetee lu leen neex rek ñu def nekkal ko ca dëkkee siim seen mari ŋàññi la ca gën a doy waar nag waa ji yeggee ko waa Confidence Magazine mooy jabaru magam jooje dafa ëmb te waa ji nee na bir na ko ne doom ji mu ëmb mag ju juru ko moom moo ko jur